parce que mën nañu commencer peut-être le temps ñu bàyyi ñu <clears throat> partage le live aussi pour que le maximum de personnes mën a déglu li nga xamante ne moom la am pour waxtaan ak Sénégalais yi ci lu gaaw rek ndax situation bi sax fi ñu ci tollu laajul wax ju bari foog naa loolu ñëpp dëppoo nañ ci. li tax donc ñu def live bii nii mooy euh, information yi ñu am ci tribunal bi euh, président Ousmane ko gis ngeen ci yan condition lañ koy yóbbu tey comme ni ñu def la dernière fois comme ni ñu def la dernière fois ci ba muy ñibbisi ci jàmm ñu bëgg ko imposer itinéraire bëgg ko jaaroo ci tunnel boo xamante ne ñëpp gis nañu ne bu mu fa doon génne déjà ñu ngi doon bëgg a tiir ay grenade lacrymogène ci biir. tey gis nañu violence bu ëpp boobu degré mais surtout mu nekk de la violence gratuite boo xam ne ku gis image yi nga xamante ne noonu lañ def président Ousmane Sonko ak benn garde am boo xam ne dañoo visé testanam jam fa benn bal ba tànkam yàqu ba ñu yóbbu ko urgence nga xam ne lu ñu am du nguur goo xamante ne dafa nekk ci logique wu logique maintenir ordre wala sax logique rétablir ordre waaye nguur goo xamante ne dafa taxaw ci imposer un régime de terreur moom la ñu gis Sénégal te ñépp ñu nekk sur le terrain tey xam nañu ne que à côté des forces de l'ordre ci seetaan ay samba booy ngi seen biir ba di def seen ñaawteef te kenn waxu leen li nga xamante ne euh, euh, kenn waxu leen dara waxatuma sax ñu di leen arrêté ci compte rendu yi ñu am ci équipe yi nekk sur le terrain évacué nañ fa ay nit ñoo xam ne paaka lañu leen jam te jamee leen ko sax ci gannaaw kon ñiy def ñaawteef yooyu kenn waxu leen ñëw leen maintenir ordre kenn waxu leen ñëw leen rétablir ordre te amuñu droit sax bu nekkee ne désordre dafa am ñu wàcc parce que loolu dafa am ñoo xam te ne ñooy ñoom la ñoom la doon seen liggéey waaye dem recruter say nervi pour soi-disant xeex ak ñoo xamante ne dañu nekk di revendiquer seen droit le plus alimentaire mooy la liberté de circulation bi leen constitution garantir ci buñ dee dem yooyu wuyu ji yoon il faut être le régime de Macky Sall pour faire ça ci bu ñuy wax ak yéen nii euh, jël nañu président Ousmane Sonko dugalaat ko foo xamante ne kenn xamu ko ay àndandoom ñu jël leen téye leen ci biir tribunal bi tere leen ñu génn te li ci seen mébét yëpp mooy naka la ñuy def pour wéet ak moom am nañu information yoo xamante ne nag ñaaw na suñu xel trop trop trop trop trop ci li seen yéene bu ñu wéeteeg président Ousmane Sonko ci seen oto yi kon defaat nañu loo xamante ne moom lañ bëgg a def sukkandiku ci loxol euh, police ak gendarmerie pour kidnappé waat président Ousmane Sonko ci condition de sécurité yoo xamante ne kenn xamul lu ci mën a topp am na males tribunal ba médecin consulté na ko liñ ko pompe ñun xamuñu ko xamuñu lan la mën a jur ci moom ci wàllu wér yaram waaye quoi qu'il en soit moom la kon li koy seen sécurité seen responsabilité yépp seen loxo la nekk te liñ ko pompé même bu fekkee ne fii un an la tamit dafa am lu ko dal ñoom ñooy les principaux responsables niñ ko enlevaatee nii tamit di dem ak moom fi ñu xamul ci trajet boo xamante ne kenn àndut ak moom lu ko ci dal moom la parce que lii nekkatul ordre lii banditisme la te information yi am amul lenn loo xamante ne dal na ci suñu xel lii xew tey ci réew mi ak fii mu nar a continuer fii guddi gi xëy na sax suba kenn xamul benn responsable am président Macky Sall la tudd parce que mënuloo jël benn singali ko ci li nga xamante ne mooy àqam ak fam ci biir dëkk lépp nga xañ ko ko ba pare la garanti minimale de sécurité ci trajet bi nga xamante ne moom nga ko bëgg a imposer mënuloo ko sax remplir ba ñu nee la def la def na def na malaise war a dem def ci consultation clinique ci ay bëtam fi nga pompe gaz ci ci ci ci ci ci ci ci électrocardiogramme pour ñu xam kii ndax dara dalu ko wala boog amul lenn loo xamante ne mën na jur loraange ci lu yàggul ci moom nga ne deetuwaay yow yaa koy jëlaat jëlaatee ko tribunal dugalaat ko ci sa ci sa blindé ak moom foofu ci loo xamante ne ñun xamuñ ci dara loolu ba kañ loolu ba kañ je crois que Macky Sall fu mu toll nii légitimité wu diriger Sénégal sur le plan du résultat sax amu ko woon mais ci nu mu bëgg a jàppee Sénégal nii nekkatul président de la République c'est un chef de gang te loolu askanu Sénégal rek moo ko moo ko mën a moo ko mën a bañ moo ci mën a xar tànk tubéyam taxawaay gii nag askan wi taxaw bu ci tegee tànkam benn yoon rek lu ñu lu ñu lu lu ci ci lu ci luy doolal Macky Sall la la la lay nekk di dox kon suñu responsabilité ñun ñëpp ñi engagé en politique ñi bokk ci formation politique d'opposition yi ak ñi ci bokkul ñi nga xamante ni ils sont dans la société civile quel que soit bord politique bu ñu nekk l'erreur c'est de croire que wala mooy yaakaar ne lii Ousmane Sonko ak waa Pastef kese la concerné foog naa ne journaliste yi ñu gazé dem bu ñu toogaatee xool dañ comprendre que lii xew ni amul dara à voir avec le maintien de l'ordre waaye ñoom ñu ngi ciy seen jël seen wàll parce que seen condition d'exercice journalistique sax mënatuñ ko am te noonu lay continuer ba keroog bu ñu bàyyi seen loxo teggi suñu tànk ba keroog Macky Sall di noot askanu Sénégal toog fii ci kaw nguur gi bañatee fii génn fii nag nga xamante ne fii la ngir mi toll yaakaar naa ne ñi ni ko ñu bari di waxe wax ji sax mën naa cee mën mën na cee gën a gën a bari te loolu moo taxoon ma waxoon ne sax sama laaj bi du yàgg c'était juste pour alerte sénégalais sur le fait que un enlevé waat nañu président Ousmane Sonko deux destination bu ñu ko yóbbu sax ñun xamuñu ko trois tere na ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon ñu ànd ak moom ci oto bi quatre information yi amoon laata ñuy def loolu ba man mii sama bopp man maa maa maa woo ñu nekkoon ne leen dégg naa lii ak lii ak lii ak ñaaw na suñu xel trop te lu ko lu daal président Ousmane Sonko rek benn responsable am mooy président makisal Sall ak son ministre de l' intérieur Antoine Félix Diop. kon sénégalais yi nañu xamee ni lii moo xew te ñu xam ne lii nga xamante ne li koy faj ci seen loxo la loxo la nekk. du ci ba loxo Bassirou Diomaye Faye du ci loxo président Sonko du ci loxo waa Pastef kese waaye ci loxo askan wi nga xamante ne président Ousmane Sonko moom la denk boppam bu wax ko sénégalais yépp dégg ko gannaaw yàlla ci ci seen loxo la ne te bu buñ ko comprendre noonu xayrun buñ ko comprendre noonu xayrun en tout cas nous au niveau de formation politique muy Pastef conseil yi jox suñu militant leer na bu yàgg mooy mbir mi toll na foo xamante ne résistance moo si des parce que ci oppression la ñu dëkk xoqatal tëj rey kidnappé def lu la neex je pense qu'il est temps de diir basta et que sénégalais yi dans leur grande majorité sax réclamer li nga xamante ne c'est la seule issue à tout cette instabilité là bu nekk ci réew mi mooy le départ de Macky parce que amatul légitimité wu diriger dëkk bi lii rek laa bëggoon wéccogu yéen di leen jaajëfal bu baax di leen asalaamaaleykum wa rahmatullah